I'll be sure of the finale. Let's go. waaw jërëjëf Yakuba jërëjëf Souleymane fu yoonu ndiki njàng mi gën a rek mi lamin pour lay nu ñëfër he andoona yee tan ree Mame Saly walla Garidi TV aɗa fu yoon in ino TV TV ke fof a jalla callel mosu meke na Diofior fu ke widuna Mame Saly koy ale ke taxna te décoré a xenena Wali gara ten rek fofange'na tere Wali vraiment a wara sargalel parce que ren imbagale wawi teme l'homme de l'année o ki nurena réseaux sociaux ke mu kinerena sénégal anda waali à travers ke defiya mais à travers aussi promotion fe ando naye mam sali he fiyana den a kenele de jegnana waali fofange an nu mboxano xerena mam sali ne te dambita waali a paaxa paax parce que a fel te fudan ne ke numa mbi'na me fiye kam defi yaate fera te damtan attette an a donanna ɗat a donanna kot bo defadiid meeke waali a retanga xaye bo waali sek a gar Joal premier concert kon nu ande refate waali fa Njaxaan waali international refatu kon nu fiyanga ken fop adna fop a andong vraiment Mame Saly organiser a mbofat ne a ɗeet relation fe nu njegna nuun fo ten ten nan ten kuurena a ten kuurena me taxe te décourager parce que ka fiya to a tax affaire angaan xay wiin we ngara laye maam Salim ne gefuna naka farig na diggante wu fu waale a tax de décourager parce que andaam e ku te ñakeer a tax ken taxu o gar xay bo décorer an te reka andoona yee fook o ndafetlu um a kontaana Diofior fop a kontaana ino TV TV ke fop i kontaana parce que keke fi'oona a mosa wure TV TV re u yoon in fi'in a fi'ane ka andoona yee ino fop ino mbi'in vraiment kon Waly wo tamit inowe gidmon inowe sante am ñananan roga moƴo gaynakon a wason men wala o ret bo keɓu jega terangal fe o jega no ar fe o ret bo ɓisayo o fega ten maga ken ley kam ten refu ye gorgorloxi o ndego doog refo saate fe mbugang adna fop roog fiyun gonnu kiin roog na fiyan a parce que peut être keke jegna o leŋ foge ginan mais tig roogo roog koy murena tena ɓeerna tigum kon wali keke garanga ken le gagare ten refu ye ku jega na fogan fu yo feke parce que ye ten re fop nu mbi kon moƴi gorgorloox ande keke refona ba dam tin caaxaan ba tin fa ndaap keke o fi'a xu rena a bugaan xaye meke fodona xu rena a buga fod men kon refatiro nu nge'a sax me mbapat ne ten innakore a waali ten refuye waali comme ne leytanuma ndiiki waali international are a jega jega guitare anga te reta neke sowal teno nqotidun waali invité el ma taxu itelun décoré am meke i mbara mbaro cung bo final a genoox voilà kon Mame Salim i ngid maaga paax a paax facax tamit andaam o ñuxale waag ke god mais ale a contana a ge'a kene le o genwa o ƴiyum vraiment te sant an a gidmanga paax a paax a paax voilà condecoration fe axe mam salit ten fi'anu a tableau leke a Waly voilà to a xefan lool lool lool lool kon Waly a i ngarna Diofior wala ya i ndetna kata saax te o kiino xa andoona paax a ref vraiment tig ka xewa Diofior i ngar mbind den nde maaga baya a na wala programme fa fadka i ndetma ta topatooxa in o teexe ten a topatooxa in kon vraiment i njegee ndafdum Mame Saly ino i laya nuun nuun wa Diofior nu moƴ nu ñaanan moƴ nu ndamit parce que oxu win sate of ɗeɗo ɓara muƴatu ndamit to i nje'andamit ne mais ɓateno parce que mbapat ne ge'na ke garna meen no piir xaye ke ge'na ke fudirna no wiin aussi ande Mame Saly jofiyorawe a mbugaan a jega ma den dononga kon wo tamit i moƴu goorgoorloox voilà kem paam tiga koy ten re nuuno a sikaab message eh, fa leg rek bug mu lancer eh. parce eh, que ye gariduma meke xaye cer ke mi a laaca a yiifa ke a ndet ma goɗna tere njom ne sikaab ndom badianin kafu ngatamin jomne sikab yaafu yankuyin bukarin jomne sikab yaafu ablay jayin ibu jayin jomne sikab yaafu mbalkayin cheikh ousin jomne sikab yaafu gan jofanin bisaleyin jol ansuyin jomne yaafu matar sengorin garam bañikin fu lakas lakas lakas jomne sikab a foga fog comke histoire a binana bin kon nu o je gorgorlo tom leke warere ka andoona yee ka jufaa o lang leke ku reena xey a meen ɓe nuun owa sika voilà def yi fe i lancé a nuun ten refu yee njom ne amateur ke andoona ñoowa ñoom TV TV ke arbitre ke pur ke fop a mbuga ne a bugum a ɓaatu nam tiig ɓe nuun owa sika 2024 2025 fe mbexey njom ne a ɓaatu fak ten i ngeɗa nuun jërëjëf